salaamaaleykum mbokk internetu set actu ñoo am mbégte ak contentement ba tey di nekk ak yéen ci seen biir chaîne bi di 7actu euh, ba tey nag ñu ngi ci commune bi nga xamante ni moo di Fass Colobane Gueule Tapée ànd ak ki nga xamante ni moo di Yacine Diop euh, di conseiller au maire ci commune bi di Fass Colobane Gueule Tapée euh, ñu continuer nag di seet gars yi activités yi benn par benn ñu ngi tey ci ay jeunes yoo xamante ne ay tapissier lañu ñii ay menuisier lañu. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di ziar bismillah auzu billah inna waliyallah jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul comme nin ko waxee rek Yassine mom suñu sœur bu baax la wax deug Yalla ni ngeen gisee bërëb bi rek non la non la deme. dañuy bolo rek bokku nday bokku bay man ak samay rak ño fi nek ñaa ay frère waaw di si liggéey tapisserie ak menuiserie man may daj kessi jox leen ko ñom ñu bouré non dal ni ngeen gisee liggéey bi dal non la non la fa demee ay ay jeune yu bari tamit ñew nañu bokk si euh, seen wërseuk nek si ñu ñew waa ñu ñew nek ci atelier bi ak ñun wax deug yalla yaqalu ñu dara waaw di ngeen gisee fii euh, bërëb bi xam nga bi xatna na mais amuñu amuñu ay moyens yo xamni man nañu dem si espace bu yaatu waaw parce que place bu place amatul motax ñu nek fi suñu bundu kër di di fi di fi góorgóorlu dal di fi di fi gérer ndank ndank ba yalla eh, ubil ñu leneen lu ëpp li man naa ne sax entreprise la parce que déjà amna ñu fi xam ñu fi xam ni nek nañ fi yor nañ seeni soxna ak seeni dom man na da man na wax dal ay père de famille ñu ngi ci ñu ngi ci bërepp bi mom di liggéey wax dëgg yalla di ci lu lu neew ñu ko ñuy am ñu ngi ci gérer seen njaboot wax dëgg yalla ma sha allah. man na ni suñu ginnaw dal kenn neeku fa xana borom bi mo nek suñu ginnaw parce que la plupart li ñuy liggéey lu ëpp commande lay doon wala tamit bu amul commande liggéey suñu propre moyen di yobbu canal 4 di exposer fofu suñu bagage di xaar yàlla foofu mën naa am daal suñu propre moyen la ñuy demee daal wax dëgg yàlla kenn nekkagul suñu ginnaaw te bëgg nañ tamit ku ñu jàppale parce que ay jeunes yuy liggéey buñ sañoon am ñu leen di jàppale parce ñu jëm kanam wax dëgg yàlla te fii ñuy liggéey tamit ku ne gis na ko xat na si tali bi liggéey risque yu bari daal ñu koy demee daal yoo xam ni amuñu amuñu ay yeneen pexe moo tax ñuy demee noonu wax dëgg yàlla si tali bi liggéey suba parce que bu paré rek dañ koy dañ koy daal di yobbu canal ba yi yi xamni commande la doon dañ koy jël rek yobbu ko xatna na trop buntu kër jamburi lañuy la mais amuñu ay moyens ñom comprendre nañu parce que seeni doom ñu ngi ñëw si atelier bi lu neew ñu ko si am ñu ngi yób ñu koy yobbu seen kër yi wax dëgg yalla looloo tax ñu comprendre ñu di ñu bàyyi ñuy tek seen buntu kër bu bun metti na torop nak. wax dëgg yalla parce que buntu kër jàmbur nga occuper ko tamit neexul mais ñom dañu xamni dal ñun ay jeune lañ mëno nañoo nekk ci koñ bi tamit mënoon nañoo nekk si koñ bi di euh, maanaam di euh, def grand place di attaaye bu attaaye jeexee ngoon gi ñu am lu ñuy def guddi gi amuñu amuñu yeneen ñu ñuy def dañuy obligé def loo xam ni maanaam neexul am na jeunes yu bëri buñ sañoon dañuy ñuy mel ni ñun daal wax dëgg yàlla parce que tagguma suñu bopp mais liggéey rek lañ xam ñun amuñu à part ça daal xamuñu leneen lu ñu liggéey. ñu ngi siy sant yàlla bu baax moom wax dëgg yàlla ñu ngi siy sant yàlla bu baax a baax parce wax dëgg yàlla daal ñu ba yàlla ñu si suturaal bu baax a baax parce que bu dul dara rek ay doomu jàmbur yi ñëw si ñun dem bay mën a teral seen waajur am na ñoo xam ne fii leen ñuy jëndal seen waajur ay xaru tabaski te si atelier bi lañ nekk waaw wax dëgg yàlla ay booy yu ndaw fi lañ nekk di jënd bu tabaski jotee ñooy ñooy jëndal seen parents yi xar te si atelier bi lañ koy jëlee wax dëgg yàlla ñu ngi si am daal ñu ngi si ñu ngi siy sant yàlla bu baax moom ba pare lu si ëpp tamit ñaanu waajur am na si sunu waajur moom wax dëgg yàlla mu ngi ñaanal guddeeg bëccëg di ñaan yàlla yàlla bàyyi ko sunu kanam mu am fan wu gudd ak wergu yaram ak sama mam mi ci kaw sama mam moñu li lepp mom la parce que déjà ban waré jang métier mom moñu yobbu ñu jang métier kon dem bu démé bu suñu métier bënn mu ñëw suñu buntu kër mu ubil ñu fi jox ñu fi magasin ñu nekk fi lepp mom la ñu ngi koy ñaanal mom fan wu gudd ak wergu yaram ñu ngi koy ñaanal wër dal ak wër lé mu ngi nekk ci kaw wax dëgg yalla buñ sañon dal am ku ñu jàppale ñu ngi ci ginnaw yasin parce que yasin mom lum dugg ñun ci lan bokk parce que déjà ñun yag nañu ak mom ta wayjurum bu jigen da melni moy yaay lim ñu de lim ñuy sànni si ñaan sax mën naa ne comme suñu waajur bu góor bi nekk Bambilor loolu la ñuy sànni si ñaan ñu ngi si ginnaaw Yacine buñ sañoon tamit ñu ya maire jàppale ñu jaarale ko si Yacine wax dëgg yàlla mu jàppale ñu rek parce que gis na entreprise la daanaka li nga ko waxee rek noonu la demee entreprise la muru ma waxee nombre bi fi nekk dama ma fi limee damay juum wala ma nekk fi di compter nombre bi fi nekk rek moo limee damay juum te ku nekk bu bu bu liggéeyee ba ngoon jot day jël yóbbu seen kër à part nekk fii des suñu kër ñoom ñëpp dañuy ñibbi seen kër te luñ ci luñ jëlee fii rek seen waajur yi la ñuy dem teral leen ko buñ sañoon daal ñu jàppale ñu rek bu dul utal ñu bu ñu mënee utal fu yaatu wala tamit euh, jox ñu ay financement lépp daal luñ ci mën a am daal ñu jàppale ñu rek ñu gën a jëm ca kanam rek parce que jeune buy liggéey bu sañoon am ku ko dooleel fii kenn mënu fi dara ku dimbali rek moo am. ñu toog ak benn ndaw boo xamante ni mi ngi fii ci Gueule Tapée di yëngatu ci wàllu entrepreneuriat ñu xam ko ci turu Papy Papy nag mi ngi yëngatu ci wàllu lavage euh, vente de moto oto ak euh, ay accessoires yu bëri yoo xamante ni dina leen ko gën a leeral Papy nuyu nañ ñu leen di bu baax yéen waa 7actu. Papy ginnaaw bi ñu bi ñu la nuyoo ba pare ñu ñu fekk la fii nga xamante ni moo di Gueule Tapée nga yëngatu ci wàllu euh, entrepreneuriat boo nee jeune ne entrepreneuriat léegi wax na lépp parce que gis nañ ni. lu ko lu mel ni sa morom yi xaaratuñu état ci dara yéenay jugal seen bopp di yëngatul seen di dem di jemal sen bop lan moo la initié nga ubbi sete, ah, en fait euh, c'était difficile euh, au début tey jii ndax ñun ay ndaw nañ soo xoolee léegi jamono ñu mu demee léegi ku liggéeyul mën nañ ne taax nga quoi en fait tey jii amuñu yenn soutien yoo xam mi ngi jugee financièrement si état bi tey jii ñun nekk ay ndaw ñu ne pourquoi pas ñu jéem créer affaire pour liggéey pour dire a sentir suñu bopp comprendre nga loolu moi moo waral ñu def initiative bi tey jii liggéey ndax au début fi place publique là au début y avait y avait rien ay moi fait fi amoon yoo xam ne ay pièces détachées tey jii ñu débrasser loolu noonu yëpp samp benn affaire boo xam ne nit ñi dinañ si mën a jëriñu gox bi si mën a jëriñu xam nga loolu moo waral tey jii ñu samp lii quoi. ñu tax mu gën a taxaw sax ay jeunes nañ ñu am suñu benn xarit boo xam ne Europe la nekkoon di liggéey Europe di liggéey Europe def na peut-être ay dix ans et poussière tey jii mu ñëw xool gox bi xool quartier bi xam ne rien ne marche mu ne moom dafa jóge Europe ñëw créer benn affaire boo xam ne ndaw yi dinañ si mën a jëriñu créer ay emploi loolu kese moo waral am benn copain bi ñuy wax am ne Moustapha mooy PDG bi man je suis le gérant tu vois mo waral ñu créer li tay ñu and ak ki nga modi Diop di conseiller au maire euh, ci commune Gueule face koloban Colobane euh, ñu gis taxawayam ci commune bi. Euh, Yacine Yacine Gueule face Colobane ku ne xamna na lu muy def quoi Yacine na ben daam bo elle est brave. nekk daam boo xam ne liggéeykat la nekk daam boo xam ne day jàppale jeunesse su Gueule pour ñu liggéey Yacine mosul gëm chômage tey jii mi ngi dugg si Gueule di def porte di jàppale jeunes yi di leen wax jug leen ngeen dem ngeen liggéey ba pare di leen doole di leen won ay buntu di leen wutal ay poste pour ñu liggéey kon tey jii mënuñu ko sant di ko gërëm dañ koy sant di ko gërëm quoi ndax Yacine tey su ñu amoon ku mel ni moom ñett wala ba ñeent tey dinañ ne suñu gox dina gën a naat quoi. Euh, ñu gis ay jeunes nekk ci waar bi ñii ñu ngi ci lavage bi ñii ñu ngi ci leneen ak leneen mu doon ay jeunes yoo xamante ni fii lañ dëkk ci commune bi ndax da jël seen engagement pour ubbi jël jeunes yi nga xamante ni ñu ngi ci commune bi ñu liggéey ak yéen. waaw tey jii jeunes soo xoolee ñu fi nekk di laabe ñëpp ay jeunes yu dëkk si quartier gi si koñ bi nañ dëkk defuñu woon dara tey jii ñu tijji lii. lii yaa maximum dix. employés dix employés yo xamné ku si nek dañ lay fay chaque weer te jógewul si xaalisu état si maire suñu dolé poche la ñoo di di leen fay kon laver tu vois am ñeneen ak yeneen ku par poste la fi terrasse la fi lavage parking moto bi mo nek le parking parking auto la tu vois. est-ce que benn jafé ak euh, maire bi wala au début. au début c'était difficile quoi au début maire bi nangu ñoon bàyyi pour ñu installer li mais boobu xamuñu woon ñun fu ñu jëm ndax tey ji jii au début euh, lu ndaw rek la woon tey jii ñuy dem di xeex di xeex ak ñoom di xeex ak ñoom di xeex ak ñoom ba taxaw si lii mais ñoom bu ñu ñëwee fii ba gis ñun lu ñu taxawal après ñoom dañu mujjee lu encouragé ñu xam ne ñun ay ndaw nañ te liggéey rek moo ñu tax a jóg ñëwuñu pour yàq ñëwuñu pour lenn liggéey moo ñu tax a jóg quoi tey jii li mu mel nii nii ku fi ñëw di nga xam ne ñii ay liggéeykat nañ te suñuy doole boobu suñuy propre gré nañ ko génnee pour samp lii kenn fekk si wuñu si macha allah. ku fi ñëw tey jii dinañ la dalal tegla si si terrasse cafétéria bi nga gaare sa oto ñu laabel la ko ba mu set jox la café nga naan teral la waaw tey jii. Euh, ku bëgg tamit comme ay sculptures am nañu ay sculptures yu ñu exposé fee ko jaay ku ko bëgg tamit même chose am nañ tamit suñuy carte de visite Yacine moom ñun dañ koy sant di ko gërëm soo xoolee moom fii daanaka këram la ndax tey jii fii su gënee taxaw ba mel nii ba ba samp nii nii nii am di liggéey ak consciemment gannaaw yàlla moom la ndax moom moo ñuy dooleel moom moo ñuy encouragé moo ñuy jàppale si lu bari tey jii suñu amee lu ñu metti sax yaakaar naa duñ jaar si kenn balaa ñoo gis kenn ak moom si moom nañuy jaar waxtaan ak moom mu teg ñu si code teg ñu si pis kon mënul mënuñu lu di ko sant di ko gërëm ñu koy ñaan gars yi ñu gën ñu bàyyi rek ñu développé quoi ñu liggéey xam nga xam ne ñun ay ndaw nañ liggéey rek moo ñu tax a jóg yàq taxuñu jóg te lii gox bi ku nekk mun na si jëriñu quoi ndax affaire de quartier la tey jii yamalewuñu ko si ñun rek suñuy rax yi suñuy frères yi ñeneen nag ñeneen ñëpp ku nekk mën na si jëriñu sentir sa bopp quoi wàññi chomage bi. jamono toll na foo xam ne ku liggéeyul rek tàq nga quoi surtout jeune ku liggéeyul tàq nga. maire bi tamit nañ jàppale ndaw yi xam nga ñu liggéey ndax chômage bi dafa metti soo xoolee chômage dafa metti trop trop trop trop encore une fois ñuy demander tamit maire bi ñu dooleel jeunes waa wàññi chômage bi jël booy yi leen ay pos ñu liggéey même suñu munee wutal ay pos ñu dugal leen si centre de formation yi booy def ay formation yoo xam ne dinañ si mën a am lu ñu jàpp quoi suñu génnee dinañ mën a jëriñu quoi bokk internetu 7actu ba tey ñu ngi ak ki nga xamante moo di Yacine Diop di conseil au ci commune bi nga xamante ni moo di Gueule Tapée Fass Colobane euh, ñu ànd nag di wër fi nga xamante moo di commune moo di Gueule euh, di wër di xool euh, ñi nga xamante ni ñoo di ay jeunes nekk ci Gueule Tapée bi di yëngatu ci wàllu entrepreneuriat ñu fekk si fi nag ki nga xamante ni ndaw la di jigéen surtout loolu li ci gën a am solo mooy soxna la te xaarul kenn ci lenn xaarul kenn ci dara. salon bi déjà buti la tudd xam na rek di jàng métier rek ubbi salon bi rek di ci ut as tuuti xam na toog moom amul benn njëriñ daan doole moo ëpp importance lépp looy def te liggéeyoo rek mook zéro yem. fii nag dama fi ànd ay jeunes di liggéey am naa élèves am na ñoo xamante ne tamit école bu tëjee dañuy ñëw di ma jàppale tout temps ñoo xamante ne xale yoo xamante ne dañu bëgg mbirum salon xam nga ñu aimé ko daal bëgg ko moo tax dañuy préférer école bu tëjee tamit dañuy ñëw fii di ma jàppale de temps en temps. liggéey bi moom métti na météo parce que moom booy ut. xaalis moom du yomb daal si lu ma foog yenn saa yi nag dina tane yenn saa mu bañ a tane mais lépp lekk togg moo amul importance daal. ci noonu du ma jël n'importe kii nag parce que ñu fiy ñëw nañu mun seen liggéey nañu yor seen diplôme mun seen liggéey am na ñoo xamante ni tamit man maa leen di jàngal bu ko defee tamit. ñu mën a bu nga xam ne bu ñu demee feneen pour ut diplôme du métti si ñoom. yan ci liggéey bi. Ah, wax dëgg yàlla jafe yi moom mooy yenn saa yi dox yenn saa bañ a dox parce que jamono bi nu mu demee nii ak yi nu mu demee nii looloo tax affaire xaw a compliqué. waaw bu ñu nekkul ci événement tamit nañu fortaas as tuuti tuuti rek bu tombelee samedi weekend yooyu tamit dañu faral di liggéey tamit. parce que samedi xam xale jigéen dañu bëgg ay jénn samedi ak yooyu dañuy defaru ak dimanche ak yooyu dañuy defaru de temps en temps. ku bëgg ñëw fi nga xamante ni moo di Dija Beauty defar boppam euh, fii mooy Gueule Tapée rue 63 angle ku fi bëgg a ñëw rek dala may contacter 77 293 40 cent euh, ñu àndoon ak ki nga xamante ni Gueule yow nga euh, mhm. maire bi. ah maire bi da xam ne dañuy dénk dañ koy dénk suñu lii rek dénk ko mu gën a defaraat ba defaraat suñu koñ yi gën a xool dugg si nit ñi comme ni mu defee fii ba dugg di xool nit ñi lan mooy seen tolof tolof pour mu defar ko parce que ñu loolu rek nañ fi am tey boo defaree suñu fu ñu dëkk loolu nañ ciy kontaan trop. ah lu mu def kay dama ko dama dama ko rafetlu trop wax dëgg yàlla kontaante ko trop parce que li yombul ku déplacé wu ñëw ba fii di la seet si wax dëgg da wax dëgg yàlla en tant que wax dëgg yàlla loolu yombul mais di ko dénkaat suñu bopp rek mu gën a góor ko parce que lépp dara yombul ci àdduna. encore fii de ku bëgg ñëw di jaabuti da day ñëw fii Gueule Tapée rue 63 angle 52 boo mu bëggee jot boo ñëwee sax na gis sax tableau affiché gi yëpp boo ñëwee gis di jaabuti bi foofu. numéro bi 77 293 40 90. merci beaucoup. xamante ni moo di Bamba Shop nekk fii ci Gueule Tapée euh, côté école Paye ñu fekk fi ki nga xamante ni moo di Lamine Thiam bokk ci gérant yi Lamine Thiam nuyu nañ la. Zo ñu ngi lay fay. waaw Bamba Shop toog rek bañ a def dara xam ne ay jeunes lañ te ci quartier bi lañ dëkk te war nañ mun a lijjanti génnee si suñu bopp quoi moo taxoon ñu jël initiative bi ànd ceeg Malick. pour taxaw mun a dimbali suñu bopp bañ a dépendre ci kenn noonu la demee waa waaw fii li muy jaay bari na day jaay yére day jaay kafe day jaay tubay li muy jaay bari na ñun dañuy jaay divers parce que ñun dañuy business des fois sax dañuy jël jën nag yooyu yëpp jaay ko boole si cek-cek beeg yooyu xam nga pour bañ a dépendre ci kenn quoi waaw yaas moom suñu mag la suñu yaay la suñu lépp la quoi te taxawaayam ci Gueule Tapée gis nañ ko waa xanaa di ñaan mu yokk rek parce que jeunes yi soxla nañ ko leen jàppale aussi. maire bi taxawu jeunes yi xam ni jeunes yi bañu ñu liggéey mi liggéey ci boppam la ñu gisul te du ñëpp a mun a nekk ci mbedd bi di liggéey ci maire bi pour baleeg yooyu xam nga du ñëpp ko mën ko waa ñu jàppale jeunes yi ku nekk andi projet ñu xool même buñ ci jàppale à 100 pour cent sax ñu jàppale leen à 50 pour cent góorgóorlu rek. te xam ni town bii ñu nekk nii surtout Gueule Tapée ku ne yaa ci mun a génnee sa bopp yaay xool noo mun a def pour génn ci rek nga tegu ci ko waa ci njub ndax dëkk bi toll na foo xamante ni liggéey rek a mun a maye quoi waa xanaa ñi woo jeune u Gueule Tapée yëpp ba ngi nii seen yëf la bu kenn am xaar ma yàlla na ñëpp ñëw ñi ngi woo ñëpp ñu ñew japp ci di wo suñu mama yek suñu papa yek ñepp ñew japp ci mu jëm ci kanam. ñu noonu mbokk internet yi nga xamanteni ñoy suivre sen chaîne bi di 7actu comme niñ leen ko waxé won ñu ngi fi ci commune bi nga xamanteni modi di Fass Colobane Gueule Tapée ak ki nga xamanteni modi Yassine di Diop di conseiller au maire ci commune bi di Fass Colobane Gueule Tapée tey nag ñu nekkon ci mbeddu Gueule yi di wër di xol jeune yi nga xamanteni ñu ngi fi ci di yëngutu ci walu entrepreneuriat andon ci ak ki nga xamanteni modi yasin di Diop duñu def luddul dul ko kàddu yi mu am lum ci sànni yasin nuy nañ la. nuy nañ la iso ak wa set actu ñu ngi leen di ziar bu wéré wér euh, di rafetlu rek euh, tay ses bi nga xamanteni ses ngeen ko jeune entrepreneur réuni de la Gueule et te gis ngeen ku nekk doléance bi nga xamanteni apporter nañ ko. Euh, pour liguey bi nga xamantene mom lañu defalal seen bopp te xaaruñu ci état ci kenn liguey rek te baña tok Euh, ngir faj soxla yi ak famille yi. ambition bi ma ci am rek euh, loo xamante ne dama ko jàngat dama yaakaar ne jeune entrepreneur yi ñu gis yëpp suñ leen dajale woon ci benn cadre wala plateforme vraiment lii nga xamante ne ku nekk soobu nga ko sa bopp te xaaroo ci kenn financé si sa bopp suñu réunir rek état jàppale leen. commune bi jàppale leen je crois que dinañu gën a avancé daf ku dem dañ laa pousse. noonu dama ci mën a dem propre fond bopp parce que dañu wax ne entrepreneuriat des jeunes te jeunes yi nga xamante ne tey dem nañ leen seeti nemmeeku leen gis nañ ne ñoom ñoo demal seen bopp kon booy jàppale da ngay jàppale koo xamante ne da cee nekk ba pare am ci expérience nga xamante ne bu ko état financé wala commune bi financé ko wala mu am partenaire yi ko financé ñooñu dinañu am sécurité am garantie xam ne ñii ñuy jox seen xaalis ñu am expérience ci li nga xamante ne mooy domaine bi ñu nekk parce que ñoom ñu ngi gérer seen xaalis normalement ñu ngi gérer seen fonctionnement entreprise normalement beneen bi aussi mooy état bi wala commune bi daf leen war a renforcer jàppale leen comme tey tapissier yi nga xamante ne seeti nañ leen te gis nañ ne liggéey bi nga xam ne état moo ko waroon liggéey tey ñoom ñoo koy liggéey ndax état mënul jox kenn xëy waaye gis nañ ne vacance yi pour xale yi bañ a taxawaalo wala nekk si neneen leneen lu dul kii xale yi tey seen parents yi dañ leen dénk ñooñu euh, pour ñu def liggéey bi mais place bi ñu nekk xat na xat boo xamante ne waa koñ bi comprendre nañ leen ci loolu waaye li ñuy liggéey yëpp du fa fanaan. man daal li ma leen di rassurel mooy que dinaa porter combat yi comme ni may porter combat environnement bi ci wàllum reboisement assainissement ak liy setal ba institution yi yëg ko waaye man it bëgg naa ñoom it ñu organiser wu ba man fépp foo xamante ne dégg naa fa financement dégg naa fa formation pour les jeunes loo xamante ne day gën a yokk seen entreprise tamit dinaa leen ko andil te su ma demee ci commune ba dinaa gën a mën a waxtaanal sama maire pour que mu jàppale leen xam ne jeune commune Gueule Tapée Fass Colobane ay jeunes yu am jom lañu jeunes yoo xamante ne am ambition jeunes yoo xamante ne mun nañu euh, jeexal tey jii euh, non emploi des jeunes. Mm-hmm. Mm-hmm. bëggoon xam rek ba xam ci Gueule Tapée kese lay yem wala da ngay dem fi nga xamante ni moo di Fass Colobane. non non du ma yem Gueule Tapée parce que am naa yeneen collaborateur yoo xamante ne ñu ngi Fass ñu ngi Colobane waaye Olof Ndiaye dafa ne bay si say weewu tànk par exemple dama bëgg a def loo xamante ne tey jii euh, commune bi dinañu xam ne ne ah programme bi nga xamante ne Yacine mu ngi koy def bëgg nañ ko Fass bëgg nañ ko Colobane te ñoom tamit ñu ngi koy wax te bëgg nañ ko incha allah dinañu ñëw Fass dinañ ñëw Colobane xëy eh, na ñu njëkk rek li nga xamante ne mooy Gueule Tapée liggéey ko mu noon échantillon ci biir commune bi. waa damay tàggatoo rek euh, pour wax jeunes yi euh, nañu gëm seen bopp euh, liggéey rek moom mooy dëgg liggéey moo lay may li nga suturaal liggéey moo tax nga am sa dignité. té ñu aussi ñaan aussi état ak commune bi ak bép institutions yo xamantane ñoy financer ñu gëna ayeufal oyofal ci garantie bi nga xamantane mom lañ leen demander tout le temps ak renforcement de formation.